asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet yi suivre Leewtoo TV Leewtoo ak koor gi yéen a ma gën a xam Amadou mën a ñàkk taala Ndiaye la ak Babacar waaw Babacar ay wax ak yéen Talla leen di filmal Ousmane leen di monteel mu moo maane leen di dawalal tey nag ñu ngi fii Géejawaay Talla Ndiaye fii nu nekk mooy Gunaas Gunaas Géejawaay Gunaas ah Souleymane Baal ngeen di gis ni sama ginnaaw école Souleymane Baal Thierno Souleymane Baal di nuyu waa Géejawaay yëpp bàyyiwuñu kenn tey nag am ku ñu fi seet champion bu mag a mag a mag di sax mba magu mbaru géejuwaay yi bu la neexee waaye loo ci mën a dégg daal bu ñu duggee ci kër gi di ngeen xam ki ñuy seet kan la ndax nag dafa ñëw ci doomu ndeyam ne tey fa fas yéene dafa ndoguli bu ñu duggee ngeen xam ko mais taal damay nuyu waa géejuwaay taala fii nga dëkk lébu njaay nuyu naa la séri taala borom ndogu yu neex yi maa lay bëgg bu baax a baax waaye di nuyu nag alpulaar yi nekk géejuwaay yëpp rawatina nag sama yaay mère Awa Kelly maa mag lay nuyu di nuyu sa ay doom yëpp duma ma lim foofu baax na Lirou Diane fi la dëkk wala Dieye fi la dëkk wala kan moo dëkk fi taal nañ dem wala mu nuyu sax balaa muy dugg mu ne yaay booy maa ngi lay bëgge taala eh, internet di Lirou doomu ndeyu sëñi sëriñ Cissé mu sëñ Babacar sëñ Cissé mu sëñ Babacar kenn moom ay eh, sama sëriñ ay laf sëñ Cissé mu sëñ Babacar kenn moom waaye sëñ Samba Ndour sa taabal ji may seen nii waa c'est normal wala joku wala joko joku wala bando wala sako wala saka debo awli bi awli ba ba tawa ko bere na de tawa La ilaha ak Aline Seye yëpp ñoo leen invité ndogu bismillah taala Ndiaye donc jot na si Dakar ak li ko wër waaye rawatina fii ci Leewtoo TV ah taala mën naa xaar da nga koy dugal jàppale moom sama rakk bi tàngale de moom bu ñëwee day baax. waaw bu ñëw rek ah. andi café bi. daal ma jox teel ma nii comme liiru jaan invité ko tey ci dogu bi ak Alioune Seye mais jéye ci lu gàtt bu mu waxee ne ji <laughs> naa leen wéen waat di baalu àq ñëpp euh, di d'abord di jëkk jaale sama sëriñ Cheikh Béthio Thioune jaamu sëriñ Saliou yàlla na ko yàlla yokk ay leeram fa mu nekk dajale ko ak suñu sëriñ bi ku tedd ki ki nga xam ne moo defar Cheikh Béthio moo ma defar man mii toog muy sëñ Saliou Mbacké kon euh, vraiment yàlla na ko yàlla yërëm te yéexi ñu euh, lépp rafet na Babacar xañ na nii rek yàlla lu gën rek lay def waaw demal maa ngi ñëw la ku matal da ngay dem parce que bi yàlla bindee ñu ba pare te wax na kullu nafsin saa yu xatun mawt am na leen lu mu ci teg kon Babacar jërëjëf waa sama digganteeg liiru Babacar loolu bu ngeen ma ci laajee dana neex a tontu trop parce que ñëpp xam nañ ko liiru maay moom mooy ma mooy man damay wax na am naa benn doomu ndey boo xam ne nii bu sax ci man la comme ni samay loxo saxee ci man wala bu sax ci man comme ni sama làmmeñ saxee ci man liiru kenn la ci man lu ma bëgg la bëgg lu mu bëggul du ko def lu ma nekk mu fekk ma ca euh, liiru damay toog ba xaaju guddi mu dégg ne maa ngi fële di liggéey fi ñuy liggéey maa ngi moom ñoo bokk fi ñuy liggéey mais su wàccee yenn saa yi bu wooyee na boos foo nekk ma ne ko dama génn wala mu dégg ci nit ñi rek ñu ne seen patron mu ngi liggéey guddi gi rek liir day bàyyi lépp lu mu jàpp ñëw fekk ma fa ak beneen équipe bi dama koy wax ne ko demal nga tëddi parce que suba da nga war a defee nangam mu ñëw fekk ma fa ak compagnie na ma bëgguma dara nga di ko def euh, te di ma ci xaar loo foo nekk rek damaa war a nekk sa fu ma jëm maa ngi moom ay ànd lu ma nekk maa ngi moom a ciy nekk mën naa ne leen rek moo ñu tàqale tëdd ci laal bu dul tëdd ci lal dara duñ tàqale maak ngi moom euh, te li ma xam ci moom liiru gor la waaw dafa gore dafa jàmbaare euh, d'abord ànd yi ànd yëpp ñu bari dañoon yaakaar ne xaalis ko lal waaye xamul ne sama digganteeg liiru ëpp na vingt ans liiru depuis quatre la ñu xamante xaw ma quatre-vingt-quatorze mu nekk biir Dakar ma nekk marché si leen kon xam ne Babacar loolu xale bu ci jur am nga jëkkër mbaa leneen kon euh, yàlla di dox suñu diggante muy man muy moom ak ñeneen ñu doon àndal euh, mais liiru jàmbaar la garmi la ndaanaan la moom lu mu yëkkati rek bañ na ko ba lu mu soxla rek wala nit bëgg ko ci moom boo ko jaaree ci man am ko euh, kon liiru munuma ko fay bañ naa ko dam sama doomu sama mbokk yi dañ koy wax ne ma liiru moolu moolu la gënal parce que liiru ni mu la bëggee moo tax ñun bu ñu kiiw rek dañ kii am na ñu bari ñoo muy samay doom wala samay jabar des fois bu ñu soxlaa dara sax dañuy ñëw jaar ko ci liilu bu fekkee man dama xëcc ma bañ buñ ko jaaree ci lilu am la ñu bëgg waaw pour mu yomb kon moo lay wan ne sama diggante wax dëgg bu ma ko mënee wax ba wax ko alxames la dara diggante bi guddi la ak bëccëg waaw vraiment jërëjëf kontaan naa ci yéen bu baax itam ñaanal jàmm nag di ko ñaanal jàmm bu baax a baax lu ma ko ñaanal rek yàlla nañ ko yàlla boole ñun ñëpp yàlla def mu mébét ak xol billaay mënuma ko sax wax ba ma koy wax sax damay pleurer wala leneen mais jërëjëf rek foo jaar mu jur njëriñ te lu yàgg olof yi ne nañ dëggal ali yow tamit ngay mbëru dëkk géejawaay te liiru ku làmbal ñi ko xam ñëpp dañ ne mooy magu tey mu ci waaw liiru ma xam ci moom ak li ma mën a wax ci moom su ma ko naree wax fii laa ñuy fanaan xaju si émission bi wax dëgg yàlla kon moom sax du wax ndax boo gisee ku bëgg nit ku faale nit ku mën a sonn ci nitam moo nekk Lirou Diane amaana sax suñuy wax dañuy yaakaar ne caméra bi nii mais man lu newul ci man du ma ko wax bu fekkoon ne Lirou neneen la mel yàlla xam ne nii laa wax ne noonu la mel mais koo xamante ni bëgg nitam la def nitam kenn du ko néewal doole ci àll bi yàlla xam na loolu mën a sonn ci nit xam nga bëgg nit faale nit fonk ñëpp moo tax li mu am nii tey mu am ko Lirou bu jógee géej Guédiawaye yëpp jóg waaw loolu daal laa mën a wax ci moom pour l'instant waaw. am na solo Talla Ndiaye Lirou ndeysaan Lirou tey. weeru koor lañu ne balaa may dugg ci li gaa yi wax wax ci am weer wi ñu nekk ñu la ciy balu ak di ñaan yàlla bu mu boole ñu jéggal weeru koor wi liiru ginnaaw bu mu la nuyuwaatee nu koy dundee kër maa leen di fay di yoon nuyu waaye yéen waa Leewtoo di leen nuyu Talla di nuyu euh, di nuyu sama doomu ndey sama xarit sama kóllëre sama lépp muy jéey ak ma rakk ji dara ndax li ci liggéey bi la bokk waaw euh, maa ngi ñaanal euh, sama waajur wu góor yàlla ko yàlla xaar àjjana ak ministre bi nee na taal euh, Guédiawaye dafa am ministre léegi ñeneen ministre si Guédiawaye am na am na woon waaw ministre la la zone la zone normal dafa jowoo waa koor gi jullit buy woor nan la war a doxale ci weeru koor waaye loolu balaa ma ciy ñëw sax liiru liiru ndax mos naa woor wooru gàll bi muy nekk xale. waaw. waaw wooree oh, noo ko defee woon. mënut a ñàkk yéen eh, wooru gàll mënut a ñàkk. noo ko waaw xam nga comme ni waaw <laughs> non. noo dama doon jàng métier. léegi euh, xam nga heure jàpp dafa am. su ma ñëwee ba xëy si avant may xëy si laay jaar fenn lekk. galaxndiku yor sama socc. Mm-hmm. sama socc ñëw socc. si njaareem di yor sama socc di ko bomb ndax su ngoonee patron bi moo ñu jox ndogu pour mu xam ne damaa woor damay jàkkaarloog moom yor socc bi di socc bu baax léegi su ay une heure jotee deux heures maa ngi koy nuyu muy Mamour Diop ndeysaan ak maam Sine Gadiaga parce que ka jóge ndax ngi ci xam nga Babacar waaw mënut a ñàkk làmb foo la ka ree liggéey mu waaye na rafet Garga Mbossé démb dafa def geste bu rafet kooku sama rakk ji waaw moom Moussa Ndoye bàyyi teraanga ñu ndogu ndogu bu baax man maa nga foon ñu def ay ndogu ndogu yu baax noonu ko duma ah mu ne day dumaat bàll non mënut duma ah, mënut la waaye day sama waay la waaye na ma bàyyi li muy wax ah. fu mu ko ah a daa mën a duma bàll ah, léegi su ma ñëwee fan yi dafa bul Sénégal gépp làmb moo ma moom rek suma rakk la est-ce que du yemale ci cadre sport. ci benn kii nee na liiru ragal la. du gis ku laajal Alioune Seye kana kan ga door nga dóor ñu daal. Euh, ndeysaan ah sulum lee ndeysaan dama ko jural kooku mi ngi fa 130 kilos. Vandam dama ko tamit dama ko dóor ma daanu ko Gris Bordeaux moo bëri grand combat bi jour boobu at Ibou Fall at des na euh, kii nu mu tudd euh, kii nu tudd sulum lee wax naa ko Ibou at kan Cobra at waaw waaw waaw. Cobra maa gën a lamb ji maa gën a lamb ji. nag di kaat na de. non waaw garaawul loolu du dara. sportivement il est très bien fi mu. Ah, sama sëriñ ba ndeysaan ba ca ñaari tali. sëriñ mu sëñ Babacar. Cissé mu sëñ Babacar maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm. sëñ Xaadim Kañ yi maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar. sëñ Samba Ndour kenn du moom borom Touba maa ngi lay ger bu wér a wér sama sëriñ sëñ Modou Faye borom jàmm gën maa ngi lay ziar doomu ndeyu sëñ Samba Ndour sëñ Modou fay maa ngi lay ziar waaw at gas léegi léegi ko nu mu tudd sama waa ji si rajo ndeysaan borom fan borom tërinoo nday seex yi ndeysaan sama seex yi borom torino bili booy at omar liiru nag yaa ngi du dafa naan bili at omar ñoo gis nga booy fan si club la am Italie mais Cheikh Ndoye de sa fan sa la kan Youssou Ndoye di mooy Ndoye sama basketteur bi waa ndeysaan na ma ndeysaan ku baax la Youssou ku baax la dafa maa bëgg te yàlla tax ca France di basket la yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm. ah si Sirajo jàlloo ca Italie. at kii Pablo. Pablo Torino sama gars restaurant Mama Dior restaurant Mama Dior. ñoo defar ci waa dina ñëw ci xam naa yaa ngi. ñooñu fan si club la bu nekk Italie Alioune Seye dafa demoon Italie temps yi passé comprendre fekk boobu gars yi boobu bëgg jot ci man mënu ñoo jot ci man Alioune Seye passe leen ñuy wax ak man su suma seexi boo ñoo ngi dëkk ñoo ngi ak ñoom jaawo ñoom bas naanal Basiru booy ñoom ñëpp samay booy la yow loo bëgg yow man kay maa ngi ci ginjar ji rek aca ginjar bi ay Babacar ay Babacar loolu day ginjar ginjar ah, ginjar baax na ci yow ah ginjar ah ginjar ah. Babacar ñaari jabar nga yor man benn laa ma gude hmm, yàlla la yàlla may ñaaral amiin waaye am nga ñaar yow non man benn laa yor waaye nag bëgg su ma daanee wul naa takk ñaareel ah si dama ne woon su ma daanee xaarim Njaay laa koy jël waaye su ma daanee wulli dinaa takk ñaareel wulli man wulli de wax ji xam nga dafa dama doon ëppi voilà parole yi nan nan nan defal amul problème sama rakk la nan defal parole yi nan ma ne nan defal parole yi parole yi nga naa waaw ñun man maa ngi jur ma non si ne na waaye taxawgul sax ah luy loolu des na ay réglage laas Babacar fii laa koy waxee Jamaïcain bu bëggee na ñëw tëgg combat bi xam na fi mu war a jaar su ko bëggul nag dinaa ko jox beneen promoteur mu tëgg ko nag jam sama doomu ndey la te li ñëwal wuyu jee seen mooy pare bi waaw gis nga jaay làmb ñu dañuy ne jaay làmb suñu sañoon waaw d'accord dañu bëgg ngeen koy def ci cadre sport quoi ñoo ngi jéggul c'est wax bi xawoon ëpp tuuti nag ndax booy bi dafa am cadre bu mu duggoon tuuti rek ah, te loolu waa xuloo xuloo waaw dafa juum rek dafa juum loolu man jégal naa ko ah, amul solo jégal naa ko tamit man maa ngi jégal Sénégal yëpp na ma Sénégal yëpp jégal fekkee wax naa dara loo xam ne tuuse na leen maa ngi jégalu ndax man bugguma kenn mer man bugguma kenn mer non stress man non stress laay dund waaye na su ma duggee ci biir géew bi maa ngi moom dinañ fa jaare wax dina fa jaare wax ba faw ah. maa mu jaare fa mu ba faw door na ne na dóor na police daan ko te dara fekku ko ci. bilaay du ma bilaay du bi. ci du dugg ci géew bi. du ma police bi maa moom ñooy nekk ci digg bi. Balla Gaye du dugg géew. déedéet. am fu ñuy yem rek ñoom ñëpp. waaye ah Lac <laughs> Aziz Ndiaye itam du dugg. déedéet. kon yaag moom keroog Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye keroog dafa maa woo. waaw man sax li ma jaaxal yéen ñaar kan la ci Aziz di àndal yaag moom. ah man de loolu ma jaaxal. Ah, su boobaa su Aziz normalement man la war a àndal ndax Aziz Ndiaye man ak moom ñoo doon entraîné ci diini Aziz Ndiaye su ma xarit li c'est mon ami ma barki dee moo Ndiaye nee man la àndal oh, koy jàppale de waaw Aziz ma nee na man la àndal Aziz la woo wax ki Cheikh Ahmadou Bamba woon billaahi wallaahi wa taalaahi Aziz woo man la àndal ki Balla mu Balla mën a tugg ñëw ñaata minute la bëree xeex ak giri te giri dana xeex Balla ne ko nan ko cons giri daw cons bi Gris dafa commencé Balla dafa commencé cons ak Gris commencé bi. Eh, président boobu Gris lay seet waay waay na ma dama ko nëbb li ma koy wax. mooy président mbëri léegi su mooy suñu président. xam nga ko ci couronne bi. Ah, couronne ba naka couronne baa nga Pikine. waaw donc dinañ jël na ñam na ko nee ñam naa. ba moom fam ne mu diggante mu neex na. mais ka yor couronne ka yor ba de. ñaari yoon. waaw waaye nag dinañu ko. moom man nu mu leen ko jox te muy bëri Modou Lo. waaw lii la. Ah, xam nga ki mooy raisin ki désert la Babacar. doo ma jox da ngay lekk rek di sama seex ya sa turino kenn du ñoom jaaw ñoom Bas Ndiaye kenn du ñoom. léegi looy looy tàpp ñu lay suivre ci. central bu Louga mooy Papa Gallo Guèye papa yi sa turino mag Guèye borom Badara Ndiaye Suisse waaw lu ma jaaxal man dama gis ma ngay ñëw nga daal benn peñe. waaw peñe bi ma ànd na ak enveloppe. Géejawaay nga dëkk. voilà. mooy mag Pape Thiass yow laay wax ci moom yàgg naa wax ci Pape Thiass ca defoon na fi bu rafet na ba la dëgër yaayam gaa ñëw ndeysaan saan la ma fekk mu def déplacement ñëw ak délégation ñëw jaala si. kontaan naa ci sama jàng nag dañ ci def parce que sama jàngi maa ngi woo xanaa gisoo soo gisee tey nii mu demee nii. ñaan jàng waa Espagne bàyyiwuma kenn. ñoom alam Alamda Asmalik Mamor Bas Bas Balago doomu nday waal Seck at euh, kii nu tudd Pape juuf tamit ndeysaan Pape Diouf ku baax la. concentration conscience ak jabaram bébé Baas ak As Ndiaye As Ndiaye. As jëkkëru maam Khoudia moom mooy ma muy As euh, Badara Ndiaye mooy magam grand Badara Ndiaye bu doon neexul. waaw ñëpp woo taman dama nekk xatu ñëpp sama papa ja Thierno Lo su waram moom du baax du ma takk ngemb Modou Mbacke baax yaay Couture mu at Moussa Fall waaw Modou Mbacke mooy def lu maron lii jox ma ko ne ma comme que yaay doomu nday Aliou Sall defal nii. waaw ne ma comme que yaay doomu nday Aliou Sall defal nii. jàppale président Aliou jàppale maire Aliou Sall. maa ngi koy ñaanal gudd fan at wér yaram sama rakk la sama xarit. gay Balla Gaye moom jàng yi miin na ko jàng yi xam na Balla Gaye. <laughs> waaw. Euh, Elton tout. nuyu ñëpp di. sa jarbaat bu jigéen waa Géejawaay bàyyiwuma kenn képp koo xam ni. wax ji ma doon wax naqari na la rek maa ngi jégalu ndax man monument la biir Géejawaay. tuuti yaay Sarr Géejawaay la. waay cam borom Espagne. ku bëgg Balla seex yi ca Espagne. ak liiru dañ lay jox léegi paño bi paño bi nag waa Ecotra ñoo la ko jox Ecotra moom ay taleeg ay kërëg lépp lañuy ñuy liggéey am ah. ñoo ànd ak nag ci koor gi ak Leewtoo ne ku ngeen seeti rek joxal leen ñu ko pañe bi ñun wa Ecotra ñoo ko ko jox jot li ma pañe boobu. Ah, waaw Ecotra. Eh, waa Ecotra. Ecotra waaw waa tabax rek la tabax rek la ñuy def ah. xanaa demoo jam ñaajo. ah ñoom ñooy tabax yooyu gis naa ko. laajal maire Alioune Sall xam na leen. ah maire Alioune Sall. ah xam na leen. ndeysaan waa Ecotra waay. waaw ah, kontaan naa ci ñoom waa ci kaw ci kanam nan yàgg nañu ko yàgg mën a. Ah. waaw kontaan naa trop Babacar tam ci yéen at sama waa ji Taala Njaay séerul lebu maari maram ndooye ngi fii la dëkk doomu géejawaay la ah, la Taala mi moo tax lu mu filmé mu leer ah. maa ngi jéggul sama fan si yëpp nag bàyyiwuma kenn kuy bëggee Lirou Diane rek maa ngi lay bëggee di la baalu àq ci koor gi tamit di la jégee di la baalu àq te lu dégg ci man rek loo xam neexu leen maa ngi jéggul ñëpp waaw yow bég naa ci yow lii nag ngir yàlla bu ci dagg dara sama booy ci Italie seex yi Taala sama booy sama Sadio mhm. euh, booy ah? Siraajo Siraajo ñoom Mañang ñoom si restaurant maman ñoom ñëpp waaw wuyu ma Sénégal yëpp dégg wuyu ma Pablo ñoom ñëpp sama seex yi wuyu ma yàllaay waxal euh, kële sëñ Samba Ndour sama sëriñ sama xarit voilà lépp leer sëñ Samba Ndour ñëw na ñett voilà sama sëriñ bi ci benn tali sëñ Ablaye Diop xaas it ñu ngi koy nuyu Ablaye Diop xaas cim kenn du nuyu sëñ Ablaye Diop xaas sama sëriñ ba ca benn tali Cissé mu sëñ Babacar Cissé mu sëñ Babacar maa ngi lay ziar. Cissé nuyu ñaanal di la bokkal. ah de. ñëpp samay samay xar lañ yàlla na yàlla defal jàmm. ndeysaan. am na solo leeru lépp mat na.